asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ngi bàyyi xel ci jamono ji nekk saa su ne mbokk yi mel ni ni ñu leen koy safoo di defee saa su ne tey nag mbokk yi jàmm ji info del si wat ci bërëb bu sell bii di Touba boo xoolee suñu ginnaaw xam ni euh, première safar bi teru na lool balaa ñu ci sore rek ñoo ngi ziar xalifatul am li tarixa muridiyya Sëriñ Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ñaan allahu buur bi subhanahu wa taala doole guddal fanam doole ko defal tawfiix ak taysir ak nag yaaxa defal ko saxat daare ni ci barke Sëriñ yëpp mbokk yi mu mel nag fi ñu taxaw nii tey mu mel ni tey kii euh, première safar bi nga xamante ni Euh, ginnaaw ku tedd kii Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké dégg ngeen ko maanaam déclaration bi nga xam ni def na ko jëmale ko ci li nga xamante ni moo di euh, màggal gi di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool. tey nag maa ngi taxaw ki nga xamante ni tey euh, ci waañ wi boo ko xoolee tey am na firndeel bi muy wax muy premier safar bi nga xam ni di Cheikh Béthio Thioune mi nga xam ni léppam da ko joxoon Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké fonkoon bis bi tam premier safar tey itam mu mel ni taalibe yi tey teew nañ fi nga xam ni ci bërëb bu bi di tuba wàcce fi li nga xam ne ay kaamil alquran waaye tamit wàcc fii li nga xam ne ay xasida waaye tamit di fas yéene togg boo leen xoolee suñu ginnaaw yéen a koy gis ci PC yi muy bernde yi nga xamante ni euh, ñoo ngi koy waajal ngir jox ko euh, jaamu yàlla mbokku taalibe yi euh, mbokk yi gis ngeen ko noonu tamit ba léegi ñuy wéy ba léegi ci PC yéen a ngi gis ngeen waañ wi gis ngeen góor yi gis ngeen yaay faal yi soxna yi ci liggéey bu am solo bi waaye gis ngeen ci wàllu café gi tam ni nga xamante Serigne Saliou moomee nekk ci bi yéen a koy seen ci PC bi waaye tamit gis ngeen ci bi nga xam ni fii yéen a ngi gis ndongo tarbiya yi nga xamante ni ci wàllu xasida yi gis ngeen ko noonu ñuy tàmbalee dugg ci biir li nga xam ni moo di ci barab barab ngir euh, dem rek euh, euh, fees yéen rek yokk li nga xamante ni moo di ab yokk ci biir ci xasida yi waaye tamit gis ngeen ci PC yi noonu ni ngi yëkkatee jàng alxuraanu karim yi waaye lépp nag ci jëwriñ li nga xamante ni Serigne Touba Serigne Saliou Thioune ñu ngi ko ziarat bu baax a baax gis ngeen tam jëwriñ jëwriñ Pa boobu ba léegi suba ba léegi itam moo nekk ci taalibe di leen soññ ci liggéey bi ngir a yemmadi waaye gis ngeen mbokk euh, naa ni lépp gis ngeen ko ci peese yi bernde yi café yi gis ngeen xaside yi gis ngeen alquranu karim yi euh, lépp fii ci barabu euh, Serigne Cheikh Béthio Thioune yéen a ngi koy noonu kon nag bu ko defee rek du ma ci wét fas yéene ànd ki nga xam ni Serigne Saliou mi nga xam ne yaakaar naa dañ ko ràññee sax moom nekk na ci café gi boobu ba léegi di ci bernde tamit di ci servir li nga xamante ni moo di mbokk taalibe yi Serigne Saliou ñoo ngi lay nuyu waaw maa ngi siyaare bu baax di ñaanal sëñ Sall Gueule Tapée mu yàgg fi lool te gën a wér di ñaanal suñu xalifa sëñ Muntaxa Mbàkke di ñaanal suñu cheikh mu yàgg fi lool te gën a wér waaw di di santaat Serigne Saliou lool ci fekk gi ñu fekk safar waaw di ci sant bu baax a baax a baax jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëf jërëjëfee sëriñ Saliou Mbacke jërëjëf tam di santaat bu baax sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou Mbacke ak mboolem njaboot gi yëpp ñoo ngi leen di ziar euh, sëriñ Saliou mu mel ni tey euh, yaakaar naa wax naa ko sax ci sama ubbi euh, muy li nga xamante ne muy bés bi nga xam ni muy premier safar te Cheikh Béthio Cheikh bi fonkoon ko lool yan kàddu nga ci mën a dolli. xanaa di santaat sëriñ Saliou rek xam naa sëñ Béthio moom fa mu ne bég na ndax lii la bëggoon ndax moom premier safar fii la ko daan fekk Touba bu ñu ñëwaatee nag def ko ci bërëbam day wanewaat ne moom saa su ne lam bëggoon rek muy fi te moo fi am ba léegi waaw ñun day sant gi ñu koy sant mooy boole gim ñu ci boole ñu bokk ci mu mel ni lépp moom la ndax sëñ Béthio moom moom du fi jóg saa su ne jëfam di gën a màgg saa su ne jëfam di yokk ndax sëñ Saliou da ko waxoon na tànk mbiri sëriñ Touba ngi dox say mbir di dox kon nag dañuy rafet njort saa su ne di gën takkaat laxasaay gi nga xam ne liggéey bi tàmbaleegul waaw di si santaat Serigne Saliou lool jërëjëf Serigne Saliou. mais sëñ Saliou dañu la gis ni kafe gi dangaa jël kafe gi rek euh, jagleel ko moomeel ko sa bopp maanaam euh, daanaka yow bëggoo ko bokk kenn daan ko ndax euh, yërmande ak xër-xër gi ñu ci am loolu café gi naka la demee ba ñu dénk la wàll waaw loolu day Serigne Saliou la ndax moom Serigne Saliou daa am lu mu wax dégg naa nee na foo fekk sekkatu café daanaam day mel ni sax mbooloo ma moo ca gën waaw nee na foo ku fekk daal booy xool ka ca gën mooy mooy segg café waaw man nag gënuma mais Sëñ Saalum man na maa bëgg lee dimbalee ma gën ndax moom ku gën moo la gënal waaw loolu nag xam naa ne daal ba ko jëwriñ Pa Assane universel di wax ba ko sëñ Xaadim woowee wax ma ko ma ne ko maa ko sasoo ndox ma kafe ga daal am naa yéene def ko te noonu lañ ko Serigne Saliou defale waaw loolu nag man sama yokkute la sama sant la sama diggante ak sëñ Béthio ndax ñun dey nu ñu mën a mel ci nite ci xam-xam ci bëgg yàlla ci bëgg Serigne Saliou sëñ Béthio moo ñu ko defal. wóor na Serigne Saliou bu ñu amoon ay gileem tey waaw dañ koy dañ koy waaw dañ koy lewatal te yoon wi day dox waaw déwén a ngi fi yàlla nañu Serigne Saliou yokkal ay xewal mais ay gëléem promettre nañ leen ko déwén waaw ndax mbiri Serigne Touba la jërëjëfati Serigne Saliou waaw. jërëjëf euh, Serigne Saliou mbokk yi gis ngeen ko tabarkal gis ngeen ki xër gi ak tolluwaay bi nga xam ne tey mbokk yi di leen fàttali tey nag euh, mooy euh, première safar ni ñu ko waxee tey ki nga xamante ni muy Cheikh Béthio tam fonkoon ko lool ba tax na gis nga tey taalibe yi tey nii la ñu teewee ci li nga xamante ni moo di ci barab bi barabam wàcceel ko fa kaamil alquran xasida yi gis ngeen ko waaye itam bernde yi nga xamante ni saa su itam taalibe yi ñoom dañ ko yàgg di sasoo mu nekk mbégte gu lay kon dañ leen di bàyyi ak leen xew-xew bi nga xamante ni ak temps fort yi nañ ko fii nga xam ne ci bërëb sell bi Touba Mbacké waaye tam ci première safar bi 2020 euh, aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimi wa sallama tasliman inna ibadi laysa laka alayhim sultanun أياس مني الله إن دجيولي إبليس إسناديت بيا ولي أياس مني الله إن دجيولي waa jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur bu jàmm ji info yaakaar naa ne tey euh, fii la jàmm ji tey yendoo ak ñi nga xamante ni tey mooy waa kër Cheikh Béthio Thioune gis ngeen tey li ko muy première safar ñoo ngi toog nag ki nga xamante ni macha allah tey Euh, ci taxawaayam boo am solo bi muy ki nga xamante ni mooy jëwrin universel euh, Paasan Diouf Paasan gis nañ tey première safar bi fi ñu fekk si la tey fii ci Touba Mbacké tey gis nañ wàccaay bi taxawaay bi euh, muy sëriñ bi Cheikh Béthio tam fonkoon ko lool jëwrin balaa ñuy sori rek ñu ngi lay wax salaamaaleykum. salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mouhamadou ñu ngi lay ziyaara bu baax di nuyu sa téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñooy suivre jàmm ji. te di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen ndokkeel baaxit ci weer wi di weeru safar te teru démb tey di benn fanu safar ñu ñëwoon fii doon ko taxawe ñoom ca cant lool nag wax dëgg yàlla hmm. ok jëwriñ xam naa duñ la téye lu yàgg ndax fu mu nekk nii euh, daanaka ñu ngi war a tëj rek xarnu bi nga xamante ni jamono gi boobu ba léegi suba ak léegi ngi taxaw euh, ci wàllu li nga xam ne muy xéewal yi ci wàllu taxawaayu wàccum kaamil alquran xasida yi euh, amoo ci benn yoon taxawaa taxawoo benn yoon lépp ci coon li nga xam ne waaye nag cheikh bi fonkoon bés bi lool ndax mën nga ñu delluwaat tuutal ci histoire ci jamonoom. waaw bis bi de sëriñ bi da daan def bu teroo mu woolu ma dajale loo ma jànkatu alxuraan yi ak xasaayid ci mujj wax ak loolu de ma nekk fi ak ma ñàkk fi nekk nañ koy taxawee loolu nag mu jur ci ñun ak cant goo xam ni sañu ñëwoon bis bi ñëw ba jàll te taxawewuñ ko ni nga xam ni moom lañ ko daan jéem a taxawoo ci kanamam mooy fexe ba jàng alxuraan jàng xasaayit bernde muy cant gu rëyit ci ñun ci nii ko sëriñ bu yombalee ba ñu dajale fi jàngat alxuraan yi suba ak léegi ñi ngi jàng ci suba ba tàkkusaan fi ñu toll nii moom la ñu nodd ñu ngi jàng bernde yi ñu ngi xéewalu daara yi nga xam ni yëpp ñoom ñu yabal seen ay dongo fii te ñu yendoog ñun dinañ fi bay añ mbokk yi nga xam ne ñoo wër dëkk bi te jàpp si liggéey beeg ñi si jàppul ñëpp kër gu ci ne dinañ jéem a fexe ba xéwal yi agsi fa ndax loolu moo doon melob sëriñ melow sëriñ bi loolu it moo doon moo doon bëgg-bëggub sëriñ bi moo ñu andi ñu ñëw def si ko ci barab bii nga xamante ni fii la nekk ci bàqee ñu yendoo fa jàng alxuraan te fas yéene rek lépp di ak cant te liñ ci amee lépp di addiye joo xam ni day day dañ ko koy jox te ñaan yàlla mu nangul ñu ko Euh, jërëjëf euh, jëwrin xanaa di la sant beneen yoon ndax li nga waroon wax yëpp euh, tënk nga ko daanaka muy journée bi li ko waral yëpp wax nga ko jëwrin mu mel ni bientôt rek ñoo ngi jëm macha allah ci li nga xam ne moo di màggal gi moom tamit nekk loo xamante ni moom lu mu fonk la tam noo ko leen noo leen koy waajal ak jamono ji. waaw balaa may ñëw ci question màggal gi ndax lii ci màggal gi la mooy waajtaay mooy bis bi dafa daje it bis boo xam ne bu sëriñ bi fonkoon la ba daan wax naan war na ci bépp cantaakoon saa su jotetee nga woote ci ak cant. ndax mooy le 19 septembre 1990 si la Serigne saali waxul Serigne Béthio ku la gis dem aljana ku la xam dem aljana Serigne Béthio wax ko ne ko Mbàkke lu ma la defal ba nga defal ma lii mu ne ko Serigne Touba dalaa nangulee nu mus sa nangulee kenn loolu nag day mel ni euh, tawféex la ci ñun mu daje ak bisu premier safar bi nga xam ni war na ci fonk ko ndax ni ko sëriñ bi fonkee woon bisu 19 septembre it di bis boo xam ni fu ñu fekk ak cant war nañu sëriñ bi ci ndimbalam fexe ba ñaar daje ñu ñëw nag ci barabam bu sedd bu tedd bu sell bi di ko fi defalee muy cant goo xam ni daa daal daa daal lëmbaaje day cant goo xam ni kenn kenn mënu ko teqale day rek kolkol boo xam ni ndimbalam rek a tax lii mën a am ndax li tax ma andiwaat loolu mooy dafa ñëwoon ci sëriñ Saliou bi mu ko waxee ne ko le 11 janvier 1983 daf ko waxoon ni bis ni tey bu képp kuy ut sama mbég wala nga bëgg lu ma neex wala nga jëfe ndigal bul sàllalooti sëriñ Béthio da leen ko wax sëriñ Béthio cheikh bi jàpp bis bi di ci sant sëriñ Saliou ba bis bu ñëw di ko leeral sëriñ bi sëñ bi ne ko boo koy jàppate na ko jàpp ci weeru worof mooy bis bu ñu gàmmoo bu ñu gàmmoo ba si ëllëg sa ba bis bi dellusi ba dellusiwaat su boobaa boo ko defee di nga am yoolu li nga ci jublu am ci yoolu gàmmu ndeem loolu ni mu la yool ya mën a daje sàkkaa lii nga xamante ni nag dafa daje ñu le 19 septembre war na si ñu sant ci sëriñ bi benn fanu safarit gënati war ci ñun ndax euh, borom màggal gee waral lépp muy ak cant goo xam ne daal sant nañ ci sëriñ Saliou te am ci mbég moo xam ne du du du du ba aljana waaw geneen cant giit mooy niñ ko waxee rek waajtaayu bisu 18 safar bii nga xamante ni lépp lu ñu am ci lañu ko amee waaw loolu daal ci waajtaay yi ñu ngi ci ñu ngi ci bu baax a baax a euh, jërëjëf Diorine Pa mu mel ni jotaay bi macha allah ñoo ngi koy waajal xam naa ni jàmm ji info dina fas yéene ànd ak euh, dañu fas yéene ànd ak yéen ba durant ci 18 safar bi macha allah ba muy teru euh, Diorine lan lan ngay tàggatu mbokku téléspectateurs yi. waaw sant sëriñ bi rek te wax ni moom sañee su la teew ci barab bépp mu doon ñu ñu fay woo wala ñu ñu fay yoxloo te waxuñu. ay woy ci xasaayit sëriñ Tuubaa nga xam ne moom ci la ñu ràññee te sëriñ bi waxoon ma ni war nga sant bu baax ndax nii euh, sëriñ Saliou def ba fu ñu yëkkatee xasaayit sëriñ Tuubaa yi wala ñu wax xelu nit ñëpp dem ci yow mu ci mu jural ma cant gu rëy rëy rëy waaw mu tax ilayka yaa xayral bariyati salaam خديمك الذي كفيته الملام إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا مع السلام الهلال والمسابر دنا سلام حسن مقام دونه كل مقام يا نور كل عابد saama waxam waa xam naa ne foofu ci yam di sant sëriñ bu baax di sant waa jàmm di ñoom it seen teewaay ak seen taxawaay ci liggéeyu sëriñ bi ñaan sëriñ bi dëgëral seen taxawaay da ngeen dund ko woon barke borom Tuubaa jërëjëf ngeen jëf mbokku téléspectateur bu jàmm ji foo yaakaar naa ne mbokk yi tey gis ngeen tey ci bërëb bu sell bi waaye tey ci baax nga xamante ni tey ni ma ko waxee tey ci bés bi nga xamante ni moo di Euh, première safar fii si bu sell bi waaye itam ni ma ko waxee di ngeen ni ko jëwriñ paasan waxee muy bés bi nga xamante itam euh, sëriñ euh, Cheikh Béthio fonkoon na ko lool ba tax na tey gis ngeen nii wàcce nañ fi ay kaamil alquran gis ngeen ko waaye itam ay xasida bernde itam jox ko ko jël di ko jox ki nga xam ne mbokku taal bi jaamu yàlla yi kon loolu mbégte la mbégte bu kawee kawe kon di santaat bu baax mbokk yi jàmm jéem fa tey noonu la dellusiwaatee tey di fas yéene ànd ak yéen durant li nga xamante moo di 18 safar bi di leen ànd ak yéen ba 18 safar incha allahu rabbi ñuy santaat ci wàllu éclairage bi caméra bi Seydina Omar ci wàllu présentation bi ngeen ànd seen mbokk taal bi Mouhamadou Lamine Muntaxa réalisation bi ku mëndoo fen Diouf mbokk yi di leen jox dig daje ci yeneen plateau ci wàccaay safar bi bi nga xamante ni rek lépp jàmm jéem fu incha allah si fas yéene ànd ak yéen di leen wax salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aouzu billahi mina